di leen xamal ne rek euh, directeur de la sécurité publique daf fi ñëw fan yi seet si ñu pour lancer ay opération bu ñu tuddee sàmm suñu kaaraange parce que dañ seetlu ne fan yi euh, diggante Touba ak Mbacké dafa bëri ay attaque ay agression ay cambriolage ci boutique yi ak station yi te mbiru sécurité doon la nga xam ne dafa dafa dafa dafa euh, autorité yi dañ ko jël au sérieux ba tax mu ñëw fi pour lancer opération boobu euh, lancement la opération bi nag dana euh, nekk ci ay fànn yu bëri ci biir ci ci ci ci ci ci temps bi dans tout nekkul tey ak suba démb ak bërki démb rek cest à dafa dafa dafa dafa nekk waa day continuer donc lansement boobu la def def si woon keroog euh, le 21 le 20 la ko def fii ci Touba ak le 21 mu def ko ci Mbacké donc opération bi nag li muy euh, objectif yi nga wund mooy pour population yi nekk ci jàmm am seen jàmm mën a continuer di liggéey di dem di ñëw te kenn du leen euh, seen ah, sàmm seen alal tamit donc ak cas yi nga xam ne am na fi fan yi passé muy ay agression ak ay violence yu fi am ñu leeral ko ci loolu nag dañu am ay renfort yu jógee dakaar mooy directeur de la police judiciaire ak waa GMI ñoo ñëw pour prêter ñu main forte pour ñu mën a euh, ñoŋal liggéey boobu bi ñu ko defee résultat yi euh, wax nañ leen ko. ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé la ñu. ci biir ñaar téeméer ak fukk juróom-ñeent yooyu téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar pour vérification d'identité la. juróom yi pour yor euh, neebar maanaam yàmba lañ leen jàppee. fukk ak ñett yi maanaam mandi di tërëf ci mbedd bi lañ leen téye ñaar fukk ak ñett 23 ñaar fukk ak ñett yi mooy ñi mandi di tëdd ci mbedd yi di tërëf ci mbedd yi ci mbedd bi juróom-ñett yi pour vagabondage mooy ñi nga xam ne amuñu fu ñu fu ñu amuñu fu ñu tëdd fu ñu fanaan ci mbiddi lañuy fanaan donc euh, ñeent pour ñi nga xam ne dañuy 15 di mandi ñett pour ñuy dawal oto te yoruñu permis de conduire benn pour sàcc juróom-ñetti pour jeu de hasard maanaam ñiy carte xaalis ci mbedd bi juróom benn pour nécessité d'enquête ña nga xam ne seeni seeni euh, comportement moo moo suspect donc ñu war a saytu nag seeni yëf ci mbiru contrôle oto yi ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti pièces la jàpp ñu immobiliser juróom fukk ak juróom-ñeenti oto ak fukk ak juróom-benn moto loolu moo nekkoon liggéey bi directeur ñëw doon def lancement bi liggéey bi nag dafay continuer li ci am solo mooy day continuer dans le temps du yem ci démb ak bërki démb rek parce que renforts yi ñu ngi fi ak ñun chaque jour dañ koy dañ ciy nekk guddi ak bëccëg pour sécurité am ci dëkk bi diggante Touba ak Mbàkke ak li ko wër